fàttali mbooloo mi di jéggalu jotaay bi yàgg allo sos allo allo allo allo allo allo jërëjëfati Serigne Ibou moom ñoo koy jégalu bu baax a baax ak kilifa yi nga xam ne ak si nañ léegi te waxtu bi xaw a xat waaye tuddum murit moom baaxoo na nii ndax kenn ku agsi rek sa kilifa ngay xaar dañuy jox détail bi sa ñett la xat mi rek mu ubbi ko ak ay mbay xasida ñu mën koo teeroo gan gi ñu bëgg a tudd bu noppee ñu wéyal. waaw ma sañoon nag ñu ñu déglu tuuti rek mooy njàng bi. salaamaaleykum. Falaalo maa ngi ziar nu mu demee nice cool pare na mes waaye ñoom ñoom ba tey ça va mama da ngay gaaw pour toi ana mu baax وبالرزون ça va nee na eh mon frère. ça va en forme. na ngay tey salaamaaleykum. ça va nee na. asalaamaaleykum. eh rakk yi papa. ça va nee na. ça va mon frère. ça va bien. ngi noonu sama waa jaa ngi noonu. dëgg la de. mais paas bi ñu dénk Papa Diouf. suñu buur baa yaayu Seydina Mohamed El Hadj Raye sa baay. la baay Thiam sa yaay ala yow boo ñëwee tubarkalla maasàlla baas bi yëngu nga bokk ak asukari biram xanaa ak ak ak ak ñu si njàmba ak doxam ñoo bokk Sadaga Kodou Ngoye maa ngi ñëw Kodou Ngoye jur Mama Ndiaye Sadaga jur boobu ñu ko fàtte moo tax war ngaa ànd kii

منا ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرنا كبيرا وثوابا والجزاء والوعد لي في رمضان أجزاء أجر الذي ما يطول لا يرهب وزرعي ñu may tuuti rek booyam ma tool mi ñëw ak responsabilité ñu ngi si ànd ak ay ni waaye sàmm da ngay fexe bi il fi toogee bu ko defee mu doon xasida mu doon mu doon jàng mu àggale. ça va ça va bien. ayca. waaye kii kii non non moom est-ce que kii bu doon kon bu ñu dëkkal cër yi. Ah. Ah. papa toog na cee taxaw. waaw ah, da ngeen bokk de. yaay suñu bàjjen. yaay suñu bàjjen. maa ngi jot léegi rek téléphone maa ngi ko naan maa ngi ko naan waaw ana fi ñu tuddee liir bi. bés xaaral ñu tegal ah. ma ne ko xarab leen ba suba ci heure bi ba kanam ak dooleel mooy Serigne Fall لا ينفد وسل لي ومن تراه نفد فد الذي ما عنده لا ينفد وسل لي ومن تراه نفد العالمين أحمدا علي تزيما boo xewle ñëpp ñëw de. waaw waay. te it tey xàtte ngeen may tuuti rek ci àggale ñaan gi ñu teere ko gan gi nga xam ne moo ñëw at nga ci xamagu fi dara. waa kër Serigne Touba yi toog yi bokk yëpp toog. mu ñaan wëllëreem te su ñu am daan bàkk nee na nit ne su ko lekk ne su ko naan njëriñ lañ koy doyee kon li ñu liggéey Assane wax nañu ne fu waay toll na amul ndax ñu ngi tudd. ana ki nekk ci xar bi ndax pare na. waaw xaaral ma géré loolu. Samy demal nga laaj ki nekk ci xar bi ba xam pare na. wala nga laajal ñu ñëw may wax bu dee bari na ma laajal waaw Samy ndax ñu ne ñu xam ne pare nañ. may leen tuuti ñu daal. yaa ngi tudd. Samy. ñu ne ñu xam ne ndax pare nañ. ñu ubbi tuuti pour ñu ci ginnaaw gis. ñu ubbi ñu ubbi tuuti rek dimbalante ba ñu ci ñuy toog tam. waaw yéen a xam ne déglu ndigal rek. nee na bisimilah sëñ bi nee na bisimilah. di gàtt bisimilah. man dafa war a leer nañu. mooy doom bi mag ja Bébé Bass ñu gën ko ci Bébé Bass ñu Papa Diouf awo ko xam ne kenn la doon ko ko mbokk ma ni fa yo ay mérite moo baax la ko borom kokki ndaam moo ko kokki sago ndaam ay sira ko jaway sëriñ Bamba bi jox ko mu ñaanal ko jaway sëriñ Bamba bi loo ñaan mu nangu masha Allah yal na ko moom muy sëriñ ñu bari ñaanal yaa jàngi ko yaa ko war nga ñaanal

sëñ même minute ma espace. te vraiment ni war a jël nga jóge tey

turandoom nit ku baax la yàlla na yor jikkoy turandoom mais baas nit ku baax la mais baas nit ku baax la ndax soxna la nit ku dal la waaye jëkkëram baax moom it bëgguñu et eh, kon kontaan nañ trop suñu xol sedd na trop Serigne Sidi Diop ci ma xam Mbakol war a nekk doomu ndey Moustapha Diop ministre ba am ñaari ah waaw xam nga euh, sama xol dafa fees ba xaw ma lu may wax ndax nag Karim Merci moom wàccoo na ak man wàccoo na ak sama soxna muy suma rak waaye nag sant yàlla parce que bu ñu naan kóllëre bu ñu naan fidélité wala loyauté merci dëggal na ko ndax kii di maamam di Soda Mama Fall sama bàjjan la bi ma juddoo moo ma uuf moo ma tudd bokk na ci ñi ma uuf bokk na ci ñu ma tudd kon bu jamono di dox mu nekk xale yàgg ma suivre bëgg ma sopp ma di ma suivre ba bëgg aale suma jabar ba may ko njëkkee ñu ne déet waay soxnaam am doom bu tuddee ko sama jabar kon macha allah waaw Karim la ñu fay rek. dafa dénk ay kàddu xamal ne moom bu fekkoon doom ji la yow la koy tuddee. doom ji mu tuddee ko bébé askan wi benn la jërëjëf. takkal li nga yor di dem Touba nee na keroog bu ñëwee ci Sëriñ Touba nee na yegg fa ak Abdou Karim nee na bi mu ñibbi seen Ndakaaru nee na pour tamit bëri loo ko ci nee na am na yoo xam ci nee na Karim moo ko yor sëñ bi nee na waaye ñun noonu ko yeggee nee na boobu ba léegi gisante wuñu. Massamba Diarra Diouf. nee na na su lay créé beaucoup de na dafa créé waaye. alxam rek kontaan man xarit bu bébé laa ñee ñoom laa ñun ñoo ànd. bi ñu nekkee xale ba tey kii rakkam la ñoo bokk ndey ak baay mooy suñu caatu mu xayri baas kontaan si bis bi rek on a même pas les mots pour exprimer suñu suñu suñu bonheur ak suñu suñu cofeel ak suñu contentement vraiment on a même pas les mots kontaan nañu torop macha allah yal na tur bi màgg yal na ma yal na xale bi màgg ba am ndey ak baay yàlla may ko gudd fan ak wér may yaayam tamit wér Karim Meps moom tëj na fi macha allah kontaan nañ ci moom merci. maa ngi lay delloo gars na kontaan nañ ci trop am nañu mbégte ndax euh, tey ji c'est la famille ku ne Pape ne buur yàlla loolu la dogal waaw bébé nag di suñu jabar di jabar ju baax nag di jabar joo xamante ni ni mu uufee Pape noonu uufee xaritu Pape noonu la ñu uufee noonu la ñu kon tey Karim Messi bu fekkee dafay ànd ak Pape ñu yàgg lool mu dem ba ànd boobu doon dëkk mu jël bébé may ko premier njëkkee doom ji judd mu ne tuuf ni ne bébé defal na ko ñun ñëpp defal na ko toute la génération consciente defal na ko waa Subatel yëpp defal na ko waa PDG groupe yëpp defal na ko Matar Diop Subatel kon lii mbégte lañ ciy def ak di ko ñaanal rek ah li mu def yàlla fay ko ko ci doomam ji mu màgg ba di ko teral am nañu mbégte loolu am nañu mbégte jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf da ngay juum waaye ñëpp diggante bi Cheikh Abdou Karim moom directement félicitation yàlla na dund ba di ko moom muy sëy yàlla mën na ko yàlla na bu ne xam ko siyaara di ñu ngi leen jaare bu baax boo leen nag bu ñu tuddee bàyyi leen ngeen ñi àndal yëpp alors merci Abdou Karim Abdou Karim

am nga yar am nga teg bari nga taal la ilaha illallah mama jël xale bu baax bu ñëwoon tayaru nit ñu am fula li doog lu toll nii loolu yàlla moo ko yar dafa kontaan wax na dëgg sëñ Xaadim waaw dañ pour ñëw da ngaa baax yow rek mën ngaa dana gàncax enveloppe bi ma yor nag mën naa koo téye si lu koy bés waaye dama la koy jox Serigne Bara maa ngi ko koy woo waaye jigéen ñi sax nag moo yi mu ñëw taxaw moom déglu ko ana tata muy ñëw Serigne Atia Mbacke ñu ngi lay def ziar waa Daaru Muxti sa bi ñu ngi toog mooy maam Thierno Birahim mooy sëñ Bamba waaye papi ñu koy ziar ñu ko jox wàccuwaay ak waa benn Nazir Karim Abdou Karim Abdou Karim toogal nii tuuti Cheikh Ahmadou Bamba toogal euh, nii ñi toog fii bi ñuy ñëw muy Nassirou Samb mi nga xam ne mbokk la wële la tey wax dëgg yàlla li ko yàlla wërsëgale ci ak ndam mbokk la ko njëkkoon a ba ba jaar rek. bébé ci taar gi bébé ci sañsa bi bébé ci mbaax gi dama wax ni tubaab nee na bien am na très bien am na waaye meilleur mooy waajo te c'est toi la meilleure ba nga ñu bokk ba nga bokk moom la bokk ak mii nu bokk benn maam Soda Fall expliqué ko Abdou Karim ku baax ku ci ku baax ku ne ci réew mi bokk na moom buur ñu bokk ak nag demba ma ca seen ak wàlle ma ca mbaaleen kon ñu ngi ma réeru ñoom joxoon sàmbaaño réer a mbayaat beneen parte ndombur gi la xaalal ak beneen dama yóbba mu yaay càlla ñu nga bokk ak Soda jël bébé mii bokk ak moom loolu kon fa tubaarkàlla macha allah lu jotaay bi xat-xat buur danañ ci dugal loolu jëf li ma ci dolli rek mooy ki mu jox cër bi laa ci dolli kii mu jox cër bi laa ciy dolli ki mu jox cër bi mooy soxna Pape Diouf mais mooy suñu soxna ñun ñëpp nit ñi dañu bëgg dem parce que xam nga lu tax ma wax loolu gis nga artiste booy sëy ak moom dafa metti da ngay xëy suba ba ngoon jot di gis xarit di gis mboq di gis am di jàmm di gis dëkkandoo mais bébé ñëpp la uuf bébé du nelaw guddi du nelaw bëccëg bébé balaa sonn sax pape du nekk ca kër ga ay xaritu pape ñooy nekk ci kër ga kon yow nee naa la di nga am téeméeri turandoo ndax képp ku nekk rek am na yéen ci yow pape di ku baax di nit koo xamante nit ku gore la nit ku neex a àndal la kon ah aca wax papa waaw Baye Mbengue Baye moom la ñuy bëgg a déglu kii Pape Diouf moo ko may jabar muy Adja Khady mi sëy ci biir kër gi ak Maguette nee na Adja Khady baax nee na Adja nit ku baax la Abdou Karim nee na Abdou liggéey. nee na ndeyema liggéey lii. man ak moom ba ñu doonee xale. nee na moom ak Yumba Mbaye ba ñu doonee xale. muy ku nangu. muy ku nangu. te lu mu am jox ma. te lu mu am jox na ko ko. Abdou Karim Abdou Karim. ñu koy xoolee nii li ñu koy xoolee nii. mooy asakay li muy am mooy asakay li muy am. ndax ndey ma ko liggéey ko liggéey ci kër baayam. te j'ai plus ma fenal nee na moom am na lu ëpp juróom-benn fukki at dootul wax lu ko wóorul. moom nee na moom Abdou Karim. ci boppam ci boppam Abdou Karim fu ma ne. fopp fu mu nekk moom damay sentir. dana ko sentir. su ma toogee rek su toogee. damay jékki-jékki rek téléphone bi sonné. day jékki téléphone bi sonné. mu yónnee ma xaalis mu yónnee ko xaalis bu bari. te du ma ko yónnee lu tuuti. ba barki Demba Ndiaye ba barki Demba Ndiaye ci mujj. bi xale bi juddoo. bi xale bi juddoo. dafa ne ma papa. daf ko ni ko papa. dinaa la yónnee. danaa la yónnee. loo sol loo sol. ba mu ne ba ma xoolee wéef bi. nee na ba mu xoolee wéef bi. yére rek nee na yére rek. dàll dàll. marakis marakis. mbaxane mbaxane. ak argent de poche. ak argent de poche. yal na ko yàlla defal jàmm nee na Abdou sa baay nee na yàlla na yàlla defal jàmm moo ñi nga bokkal ndey ak baay yàlla leen yàlla sàmm yàlla leen yàlla sàmm billaahi nee na billaahi ku ko ñee nee na ku ko ñee ku ko ñee ku ku ko ñee am nga problème am nga problème ndax kii ndax nee na kii daanu nee na Abdou Karim du laal suuf wér laa wax nee na moom bàyyam lu wér lay wax wér laa wax nee na papaam nee na lu wér lay wax Abdou du laal suuf saadix la taalibe Serigne Touba la am sama ngërëmal Serigne am ngërëmam am ngërëmal Serignam koy ñaanal nee na moo ko koy ñaanal sama bàyyi moo ma ñaanaloon ndax nee na moom papaam moo ko ñaanaloon koy ñaanal nee na ñaan goo ko bàyyam ñaanaloon ñaanal na ko tey doomam nee na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf bébé jërëjëf Soda waaw euh, salaamaaleykum salaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ah, di ko njëkkee sama nuyoo maa ngi koy njëkkee ci waa kër Serigne Touba yi fi nekk Mbacke Balla Mbacke bala ñu ngi leen di nuyu bu baax. sëñ Baara Mamor mbake sëñ moom sëñ Fallou sëriñ Xuddoos Mbacke ñu ngi leen di ziar bu baax Mbacke Balla di nuyu suma xarit sëriñ Fallou Lo ngay bépp sëtu sëriñ Touba bu fi nekk rek maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu nag sama bàjjan Soda Mama Fall et di sant. bu baax suma bàjjan ndax nag mbokk rek moo am solo ndax bés bi rëy na trop si man bàjjen bàjjen ma ne bés bi rëy na trop li ko waral nag mooy hasard amul ndax sama bàjjen mi sànq rek bi may ñëw ci tudd mi sama yaay mi ngi naan bi ma juddoo bokk na ci ñi ma uuf tudd ak sama bàjjen ceena kenn yàlla na ko yàlla xare aljana kon deret mooy wax. kon deret mooy wax kon loolu nag buy dox loolu buy dox di dox di dox di dox ba yàlla dogal tey ma nekk artiste donn samay maam ndax li may def jàngiwuma ko de woy wi may def man Pape Diouf dama ne woy wi may def jàngiwuma ko dama ko donn ci deret donn ko ci ay maam di ci woy di ci tëgg bi ci lépp kon su ma woyee rek defe naa ni war naa woy waaye nag man bi may ñëw di woy fekk naa yoon wi leer ndax ku ne ajaratu Soda Mama Fall wala nga ne Aliou Faye yàlla na ko yàlla yërëm wala nga ne Assane Jabaay wala nga ne Boy Ñing wala nga ne sama maam góor Gora Jabaay wala nga ne sama nijaay Cheikh Mandioba Ñing kon yaakaar naa ni war naa mën a woy wala nga ne asu njëgeen suma maam kon war naa mën a woy bu lool nag di dox di dox di dox jamono di dox ba Karim metsi bëgg ma ci li may def mu sopp ma yàgg ànd ak man bëgg ma nag ba bëgg suma jabar loolu fa la mbëggeel mën a yem waaye yamu ci merci dama ko jaral lu ne dama ko jaral xuloo dama ko jaral xeex dama ko jaral lu ne kon bu yàlla di dox yàlla di dogal àdduna di dox ba mu dem ba am soxna jël cër bi jox ko sama soxna ñu jóge ci loolu soxnaam am doom mu jël turandoo bi dippee ko sama soxna kon Karim wàccoon na ak ñun kon bàjjen bég nañu trop ndax nag teraanga teraanga rek la maa ngi biral waa Sénégal que ni Karim merci amuñu luñ ko fayee mënuñu ko fay yàlla lañ koy bàyyeel ndax toppeewuñu alal toppeewuñu tur waaye teraanga lañu toppe ak bëggeel ak cofeel kon Badiane kontaan nañu trop trop trop trop ñi nga doon fekkoo leen fi samba ma ca yéede alaaji Seydou Faye sa baay yaay colle ñi ngay say bay biramay sa maam siiri bébé baas borom turandoo tay ñi nga doon fekkoo fi maam ya nga nurool samba jaare Juuf ay sa maam gar nga Alaaji Njaga Juufay sa maam sëri bébé baas ko daane may seyni man sëri sambate mbali muxtaar waliyan waliyaabe serna serna be ni nga tollu rek nga jëfe papa Diouf papa Diouf a ñu ko baay ndaanaan dañu koy tooñ gàcce nga la ma waay may leen nu tuuti waay dimbali nu may leen ma ma ñëw ci yéen laa jëm si ci yéen laa jëm ci yéen laa jëm ci yéen laa jëm si ci damaa bëgg jox leen leen wax ndax li ngeen wax moom laa bëgg a dégg ndax seen booleel ma lépp seen ñu koy woy ndax lépp ma fii mooma kon dama leen di jox ngeen taxaw wooyu ma ma defante ngeen ñu baax wàcc sa allo allo allo allo allo allo yokkal ma micro bi tuuti lii lu muy jëriñ moom nii kii la siti la DJ yokkal micro bi ah asalaamaaleykum mbooloo mi ñaari baat laay waxee bi ko ma wàcc mati oh cam cam cam cam damay sant yàlla di julli ci yonent bi ginnaaw ba ma musoo ci seytaane ba noppi tabarkalla macha allah Abdou Karim Messi mii tuddu doomam ji man mii maa jur yaayam kon su demee ba sama sët di tudd sëtam di tudd doomam man sama ñaareelu sët laa taxaw loolu nag doy na sant yàlla waaye kii ko tudd si di sëtu Serigne Touba rek di denc doomi Serigne Mbacke na loo mu soxna Mbodj loolu def na ma mbégte xoolal sama kanam gi dama jooy man su ma bëggee damay jooy waaye tabarkalla macha allah papa Diouf mi soxna Mbow mi ko jur ak Fatou Mbow ma jur ñoo bokk nga càll mi ko jur Fatou mu sama yaay mooy ndongu sagari njàmmam biram xanaa nag jogo ba bokk benn ndey te biram xanaa ne maamam jogo ba jur Fatou Mbow mu jur ma waaye xam nga góor lu nu koy nawe jabar ju baax yow sa ndey nga aawaloo li sa ndey muñ tëkk a seex juuf man la fekk maa fekke mbojj mi maa xam ni dugub ci toll ba ma sa ndey di fekk ca kër ga booba kii ma doon boot am na ñeent fukki at ren ma dëkk ak moom ca kër ga nekk moom ca kër ga yàlla yàlla dogal ci man ma seex benn bis ñetti doom ñaari góor ak benn bu jigéen sama seex sama triplé sa yaay ko boor ba mu fer yow yaa baax yaay waaye nag moom la la yàlla faye kii taxaw te ñu ni bàyyi leen jimaamu ñu ni bàyyi leen sakk jëf luy jimaamu ñu defal lu baax sakk jëf mooy ni defal lu baax te doo ko wax jimaamu mooy foo toll wax li nga def alkaati nag bawul dóor dafa gisul ku tooñ ba mu dóor kii defar na sëy bii defar na kër gi te moom tur bi may leen moom moom tur bi lu ko war na ko ci moom yàlla na nga dund bari ko muur muy sëy njëkkee nag dina am jabar ñu may ko doo mu mu aussi ñu may ko njëkkee doom juddu tudda ko ba nëpp ngay wéet am gàcce waaye yow loolu da cër bi ñëwee kër jógob ci loolu dem kër biram xanaan nii dem kër càll nii càllaay jox sama yaay sama njaam Seex Juuf ñoo bokk bàyyi ndax sow na sa yaay sow na mbuub mi ju Seex Juuf la jur moo sama yaay Faatu Mbuub ñoo bokk bàyyi may sant nag Maguette Faye di sant Yumba Mbaay sama doom di sant ñoom Rokoy Juuf ak kër gi bàyyi ma kenn xadi eh, nag ki laay tëjee ñaari baat lay wax Abdou Karim du ma ko gërëm Abdou Karim kenn du ko gërëm xol bu sedd cat sax mën na ca dugg Abdou Karim aw na ma ci lépp ni ma yu ma mbaay ndeyam awe ci lépp Abdou dox na sama digg ak lépp nu yu sama ndeyam bii sama taaw yaay Abdou Karim laa taawloo waaye Abdou Karim dafa dox sama digg ak lépp nuyu ma mbaay sama taaw bi ko taawloo doxe sama di sama digg ak lépp ma xaw ma fu nuy jaay rawitaay ma xaw ma de dépassé jóge fay ma la fay ma courant sama oto ngi gaare soo dama reb sama caat bi ma kon di bëkki dem léegi la seexantal ko man samay doom samay doomi mag samay doomi rakk ñoo ma bëgg sëy bii nag yàlla na mbarke mati caan ndogoo kii ñu tudde doom ji ca may gu njëkk ga ca ngoro ga ëmb am doom ga ba fii nu toog mi ngi nii noppalul benn yoon mi ngi nii moom lañ tudde doom ji waaye na yàlla yonent bi moo ko mérité yaa ko mérité yàlla na nga ba di ko muur muy sëy feelaa tout ni ko di làkke walis bi mu andi fii solal wasin wi lu ni mu andi ko waa li nu mu doon ni sama yeeli maam nee sama yeeli maam Bébé Baas nee sama yeeli maam nee sama yeeli maam nee sama yeeli maam nee na sama ci mbuumbaat guy dem ba maam isaan dëcc jërë mi ci siin la dikke pendaak ma ko du yaay mi ci newraas dece jërëjëf juma kumba kolwaan ak yaa kumba kolwaan sandeer de biram daxee sëre bi ma na bu wot foral ma am na bu rot bébé baa ci soora mama bébé baa ci soora mama foral ko bébé baa ci soora mama bébé ma sama sët bi yéenewul woon teraanga du jël bi yóbbu ko sama kër ndax eh, eh, eh, Abdou bu amee jabar yóbbu cër bi kër biram xanaan dafay fekk mbisin jàbba ak dogo mu jur faatu mu jur faal ba nga duggee ci papa jur bi avancé nga ko am na jom waay dolli nga cin lu mag ngay yëg ngay taal liñ toppatoo kenn ku ne na sa lii nga defanteeg man tur bi taxul ci dëkk kontaan na suñu sëriñ nga fee toog dama ko indi Touba waaye daa bëgg ñaan waaye bu dul noonu kon dañu koy yendoo ba jant bi so te duñu jënd si jox na si woon sama wàll suñu wàll mais suñu wàll mais Mbédou naka la yaa ngi fay. alaaji Fallu ma jëm leen Dakar Barthélémy Dias Barthélémy Dias maire de Dakar fii ci ngeen Abdou Karim Messi l'arrivée de Barthélémy Dias ndeysaan maire de Dakar mu ngi noonu maire de Dakar Barthélémy Dias maire de Dakar Barthélémy Dias l'arrivée de Barthélémy Dias maire de Dakar fii ci Abdou Karim Messi ndeysaan l'arrivée de Barthélémy Dias maire de Dakar l'arrivée de Barthélémy Dias maire de Dakar mu ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu dugg si lii nit nit nit jooyuñ ko dara nit duñ ko lekk duñ ko duñ ko tong-tong nit bëggam la am l'arrivée de Barthélémy Dias maire de Dakar ndeysaan l'arrivée de Barthélémy Dias maire de Dakar mu ngi noonu monsieur le maire a ngi noonu monsieur le maire a ngi noonu Barthélémy Dias ndeysaan l'arrivée de Barthélémy Dias maire de Dakar mu ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu Barthélémy Dias maire de Dakar fii ci ngënte Abdou Karim Messi l'arrivée de maire de Dakar Barthélémy Dias mu ngi noonu ndeysaan laata. monsieur le maire ngi loolu asino monsieur le maire ngi loolu dugg si na waaye ñëw na teew fi nga xamante ni moo xaritam mi waaye teew na fi nga xamante ni gars yi si bu na ñëpp toog la gars yi na ñëpp toog ñu toog ñuy photo photo si waaye nit ñi toog waaye dina la toog yaa ngi jàmm sa waa alhamdulilah dama bëgg na ah ay damay jooy de nan may bébé nan nan ko may mu teew jàll. sunu jabar ji nañ ko mu jàll. moo ngi doon di nuyu monsieur le maire ki nga xam si kenn la ci bopp waaye diggante ak borom këram ci ànd bu rafet ci teewaay bu rafet looloo waral tey euh, que euh, teewaay fii nga xamante ni mooy monsieur le maire di fàttali Ndiassane. sunu maam Soxna Mama Fall ñu doon taxaw ak le maire de Dakar fàttali Ndiassane ñoo doon taxaw waaye dama bëgg rek tuuti rek. nañ toog tuuti may la may la maire. nañ toog tuuti may la maire. waaw waaw waaw waaw waaw leen côté yéen it nee nii ngeen di demee ne leen. taxaw ci seen partenaire jaas man ma am dama soxla essence. siis ba abi on se lève mais kaay toog yëgale. waa Ndawar Ndoo Tende moo ji mayu xub yi gaañoo mooy sa benn doomu Fatim Sey maam nga ci biir jënd yaa mën maa maa dégg doomu Falis Dombo doomu Kumalobe Haara Sankaan ak am buur la buur la maam joo am buur la buur la ànd waaye yow yaa dëkk Ndany yaa dëkk Suuna yaa dëkk Ndou. dëgg la di polukaay naan mu laay laay wiiru gën. yow tuddoo maasaas doo maasaas àndoon maasaas. macha allah de suba. sama set bee am tam. Koundé la maa ci yéen. sa yaay ba mu am fàtte fukk ak juróom ba nga nii la ma aw moog ay tàmminam ci dépense ak ndox ak courant ak ndimbal xanaa xamoon ne ku sonn. dangay dem ca ci kër yoo xam sa yaay du ko yaay la xam loo mën a sa papa la la la mën a lebal nit ñi. na muy nekkoon fii di jàng xale ci koñ da daan football amul ba yaay dara ci dara ci ko solo je fais rien na ñëpp xam ne kenn moo ñëw ci man ak kër gi ak famille sa partenaire ak sa partenaire loo ko jox ci kër gi la koy indi. moo koy rafetlu ci maanaam. ak yonent ba ci biir Ismaïla la seen bàyyi dinaa màgg fukki yoon te bu ma teewul ma ma lay gërëm na ma déglu xanaa xamul ne sax day yaas xamul ne papa boole na rafet am wërsëg jàng civilisé am yaakaar yi géwél yi ko yaakaar yàlla seetaan ndax la gisee wax la loo neex waaye bu la la leneen loo yëg te boo ñu woowee nga yaa ko xam ne nu ko nee du noonu da koo nekk danger kër ak yaasin génn ak dëgg la Fatou Biram Ndao ak maam am nguur a àndal baax yonent yi ku la la nga am ay jigéen lañu yoo xam dañuy woyaan waaye duñu sàcc duñu fen duñu mooy yàlla duñu naan sàngara ba ngay suñu ku ne am nga kii fa kii sàmm kii moo topp sa baay kii moo topp sa baay jël sama jël sama doom ngi taxaw barka la masha Allah affaire bi du gaaw noonu beneen nii sa njaboot la bokk Abdou Kaye sa njaboot la bokk waaye maa ngi seetlu xale yi nii baax na trop kii bu ñu kii maa ngi maa ngi banaan nii parce que yonent moo baax ñu laa leen ñëpp baax ñëpp la bokk waaye maa ngi banaan fàtte leen di gëm ànd naag ñëpp ñoo ngay ñëw damaa ñëw ni ko sama oto damaa baax ca ba fàtte. jiw ñaaw. maa ngi. moo ko am naa Dakar quarante deux cent xam naa ñëpp sàcc seeg góorkat yeeg fenkat yeeg xaalis ñoom ñëpp laa xam kon am na loo doon wut doo ko am yàlla jox la ko maa ngi ñaan suñu borom leneen tege ca man ragaluma ku dul yàlla bëgguma ku dul sëriñ Tuuba waaye nag damay jàmbaar yu bëriwul solo ma bëgg jàmbaar yu mel a xam ni jàmbaar te doo tooñ kon su ma ñëwee ci Abdou Karim nga xam ni aw meloom ak jikkoom ak sëriñ bi moo ma boole nga fekk ma fi li ma xam yow di ko dund sama diggante yow te nuyu ma la loolu laa lay séddee. te boo ànd ak sa waay bëgg moon ne la nit da koy defal fu mu dem ne la ni yow la nee toog ñuy yéeg ñun bëgg nga fekk yéen yéen a nuroo lu ngeen sol yéen yéen nuroo ay weer yéen nuroo dàll kon da ngay gis mu topp yow boo tegee mu teg buy dugg muy dugg waaw baa doole bari nag day ànd ñoom fab lépp jox leen lu naan ci boo ko toogee di léegee ñoo la gën day borom day ju borom aay baax la waaye loxo ko loxo la bu la ngay da nga ñeente am na nit foofu laay daangee de baax nga lu xam ne lu dimbaliwu la ëpp na doole yërëmu la mën a dem néegu la xam lu baax loo xam ni soo ko waxee nga jëriñoo ko mu denc ko sam noona démb dégg démb dégg wax ni xaw a dal ci kaw gone yi daf leen ma leen dëgg jur tàmm dëgg mooy jur tàmm lu jur na am na de bisa amul bàyyi woon na am na de il noonu ma yaama amul bàyyi woon na am na de fu jàmm nekk lii xew yéexul kenn waaye feeg muy am li di xew bu ñu bëggee jàmm na leen di dëgg teg ñi yor dëgg gerte ñi ñi topp seen ginnaaw loo génn man neexul ma kenn mer la laa ragal si ma balaa bëgg seet la fa lay doy yow nag boo doon muj man bàyyi fan la. dana la muj. baa bi sëriñ Bamba boo doon muj man bàyyi fan la. lu tax am na tax lu tax julli waaw bu doxul noonu taale julli julli bu doxul noonu taale bi taale bu doxul mënta doon murit murit bu doxul mënta doon Baay Faal Baay Faal yee nga ca kaw yaa nga ca kaw sa dëggu sa comportement sa dignité sa fit sa bëgg réew mi sa am doom sa mu woo si doon yi nga am ak nit ñi loolu mooy tax a baax woo ñëpp nag ba teg la ci kaw dafa sa tànk benn wéq bu la yàlla gën a gaañee nga daanu ñoo ñaan suñu borom nga nga mucc li nga ci réew mi yàlla nga jàng ndax wóor na ma ni jàmm rek nga yéene te public bi fi gis mu wecc bëgg-bëggam bëgg-bëggu public bi xamul yàlla njaboot ak yàlla mooy nit man fi mu ne bëgguma dara li ma bëgg am naa ko dépassé at yii bëgguma sax ma denc damay dund di joxe dépense bu suñu woote muy ji bu dee jote ma dee lii ñu dajee muy bari àtte bu bu wér rek lañ ko te ku doy la nga di man bu amul suñu di man bu amul xamee di man ku dox la nit di man kon bu sooy génn ci télé bi nu may def daa koy ma dem ba sama dund soxla bëgg jëyee daa dëggu lii bi ko wax na maa bokk ñu ñàkk ci naan te xam ne gaaɗɗaɗe so fewnide mi yanata leydi das goɗɗo hande samamare mi ni belne abdougari hamudo hama dagu ko si moom laa doog a xam ne artiste dañ koy teral mairie Dakar si yow mi laa xam ne woykat day ñëw mairie Dakar ñu koy teral xamoon ne soo de way kat boo dugalee mairie Dakar boo bindee maire bi daf lay teral xamul samay dossier jox ko ko ma jeey mu jox ko mami mu ne ko bis bu ma war mu ne ma bis boobu su ne toxu ci loxo noppu Barthélemy Dias lam ca man dana ko def ndekete yoo artiste yi dañ di teral mairie Dakar fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa naggee fii fekk baax maa ngi lay a xam ndekete yoo am na aide yu ñuy génne sax di ko jox artiste yi ci yow lañ ko xamee. bu soxor du gërëm. baadoor du gërëm. ki ñaan du gërëm def du gërëm loo ko defal ñaan yàlla naa ko mayeen ma li may wax dama jëlaal occasion la ci bisu Abdou Karim bi occasion la ci bisu Abdou Karim bi may wax na li ma la bëgg a wax yaa ko def dama koy wax soo ko deful woon dama ko wax ndax bari xar man galas du ma tax a gën te doom di ma jurul booleen ñaari booleen booleen ñaari jërëjëf bu ndaw bu ndaw ak benn yoon tuuti dafa am bis yoo xam ni buñ ko doon bindal or lay doon bindal ndax des koy fàttali la koy waral nag ñetteew ci bis ba moo tax bis buñ koy fàttali ko bis ñetteew ci bis ba ak jëf ja moo tax sa teewaay bi ma de xamoon naa daan daje kii sama xale bu baax xale bu am jom waaye yéen ñii Barthélémy Dias nous sommes vos administrés vous avez marqué l'histoire du Sénégal vous allez le marquer l'espoir c'est vous yaakaar Sénégal ñoom ak génération réew mi toll na foo xam ku bëgg jàpp surtout ba tey loolu day suñu réew suñu wàllu réew mi loo tubaab bi dàngal mille neuf cent soixante bu dëgg bi ñuy xeex ci mbir waaye yaakaar ni yéen bañ na seen wax naa ba tey nee naa ko man de bu ma ci tolloon foo boo taxee boo gees di yàq sama ba yegg waaye gestu dégg nga yéen a am jom yéen a bëgg seen réew yéen a yor xar xalaat bi et eh, que Dieu vous blesse, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde am nañ ko bënte sa xarit di la wër yow na jaar xam ne leen yàlla leen yàlla sàmm yéen yéen a yaakaar yéen mi dama ni wala yi da ngeen laay waxal dem leen bi ñu ji ñuy ñoo yaakaar réew mi Mbàkke Sëriñ Tuuba ñun Sëriñ Saliou rek la ñu yaakaar monsieur le maire man Cheikh Béthio ak sama mbéy mi ko dee Pape ñun Sëriñ Saliou defal na loolu lu ñu bëgg am ko Sëriñ Saliou defal na te réew mi de foog ñu lu yéen ñii di suñu jàmbaar ak suñu doom yii waaye dana ci mën ndax ñu noppalu am réew bu bëree noppaluwul maa ngi leen di dee yàlla na léegi nañ ñëpp déglu rek waaw na nga am